Je crois que vous souriez un peu en posant la question d'ailleurs. Parce que euh, ministre Ismaël Amadou Fall xam-xamam moo jeex c'est un constitutionnaliste moo taxoon ne nul nul yéen koy fàttali trois fois donc xam na ne bu dee ci côté droit rek foofu wax dëgg yàlla am na sursaut peut-être nee na loolu foofu léegi affaire politique la waaw constitution la ñuy wax wala la ñuy wax président bu ko neexee mu wax waxaat leneen dañ koy jox cër bi nag parce que mooy président de la république waaye li mu wax mooy président bu ko mu wax bu ko mu waxee man dañu defoon ne loolu fari nañ ci dañu defoon ne wax dëgg yàlla ba ñu ànd ak président defoon nañ ne la nga xam ne moom la ñu xeexoon deux mille onze quatorze personnes ñàkk ci seen bakkan du nuyuwaat deux mille vingt trois wax dëgg yàlla di nekkaat ci même problème ñun de ñaan loolu moom en tout cas man Aminata Touré yaakaar ma ko woon Souleymane Mbaye doon lu ko neex moom bu ko neexee mu wax waaye def naa ne au moins il s'est rendu compte que en matière de droit il n'avait plus d'argument moo tax il a glissé dans le domaine politique le président de la République il est tenu par le respect de la constitution mais dëkku yi ñu xam seen constitution yi ay deux cent ans trois cent ans quatre cent ans li bokk ci stabilité seen réew loolu la ñépp tënkandoo seen bopp ci benn sart bu ñu tuddee constitution waaye man dama bëgg a toog ci nguur gi rek bëgguma dem donc su ma neexee la si signé woon ak la ma sénégalais yi watee loon ma teg ko ne def li nga xam ne moom laa bëgg def loolu démocrate yi du ko nangu mais chantier dañu jox chantier dinañ ko ko yeggal nañu ko def voilà ëpp ñu xam-xam ëpp ñu xam-xam ëpp ñu expérience chantier yi na ko bàyyi fa mu nekk te dem voilà dem noppalu danañ ko ko continuer ba yokk ca yokk ca bonne gouvernance yokk ci mérite kon loolu pour euh, argument amul foofu